hasbunallahu wa nihmal wakil assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp rawatina mbokk yi nga xam ni dañuy faral di teewlu jotaay bi muy jotaayu fàttali konte di jotaayu xam-xam di jotaayu jàngale ci li sunu boroom subhaanahu tabaraka wa taala ci waxi sëriñ bi seexuna ahmadul xadim mu mel ni ñi ngi tolloon doon jàngale téere bi ñuy wax al jawharun nafis suñu bàyyee xel suñu jataay bi mujj ñi ngi doon jàngale lan mooy farataay tiim ak di aju ci tiim kon dañuy tàmbali suñu jotaayub tey ci lan mooy sunnaay tiim moo tax sëriñ bi wax ne faslun lii ab bunt la fii sunna ni ci ay sunnaam moom tiim sunnanuhu ay sunnaam salaasatu ñett la intaxdu di ndeem lim na awaluhaa aji njëkk ja tajdiidun mooy yeesal darbatil yadi dóorub loxo ya bu nee dóorub loxo ya nag def cee jublu rekk teg gi ngay teg sa loxo ca la ngay tiimee teg gi ngay teg sa loxo ca la ngay tiimee moom la jublu ci dóorub loxo ya wal masxu ak masaaga baynal kuuxi ci diggante tikki jara ya wal mirfaxi ak conce ya summa saalisatun topp ñetteel ba as sunani summa saalisatu sunani topp ñetteelu sunna ba tartiibun mooy toftale yaxum gog gana matale kon sunnaay tiim ñett la ba ca njëkk mooy yeesal tegub loxo ba ndax waxoon nañ la ne la farata ya mooy dóor bu jëkk ba maanaam mooy teg loxo bu njëkk ba ca la ngay tiimee loolu farata la sagam boo tegee nag dangay tegaat tegum ñaareel tegum ñaareel boobu lay wax ne sunna la kon dafay mel ni kii tiim bu yamoon ci benn teg rek ci loxoom ca la muy tiimee masaa ci xar kanamam masaa ci ay loxoom kon teewut day baax waaye nag sunna si mooy teg bi muy teg ñaari loxoom ca la muy tiimee masaa xar kanamam tegaat ko ca tegaat boobu mu ko cay tegaat muy tegub ñaareel teg boobu lay wax ne sunna la ba ca topp mooy masaa gi ngay masaa sa loxo la tàmbalee ca tikki jareex maanaam fa ñuy takk montul ba ca conceex masaa googu ngay masaa loolu ca tiim loolu sunna la kon la ciy farata mooy la tàmbalee ci yetti baaraam ya ba ca tikki jara mooy fa ngay takk mantu kon loolu mooy farata kon bu dee jàpp nag la tàmbalee ci coñ ci ba ca tikki ya day nekk farata waaye bu dee tiim nag loolu sunna lay doon kon la cay nekk farata mooy la tàmbalee ci cati baaraam yi ba ci fa ñuy takk montu maanaam poignée bi cati baaraam yi ba ci poignée bi fi mu demoo loolu mooy farata ci tiim kon loolu muy ñaar ñetteel ba mooy toftale nay sax toftale nag bu ko waxee mooy ginnaaw boo defee xar kanam nga teg ca loxo maanaam la ngay def boo ko defee nga teg ca la ca war a tegu kon loolu sunna la kon fekkoon tey da ngaa njëkk a masaa ñaari loxo yi doole masaa kan xar kanam gi kon bàyyi nga sunna kon dangay ngay bàyyi sunna kon di nga def farata waaye bàyyi nga sunna teewut it tiim gi dina baax kon boo bëggee def farata ak sunna mooy dangay ngay njëkkee kanam teg ci loxo. kon ñett yooyu mooy sunna si mu ñëw ci ngëneel yi mu ne amal alfadaa il mooy ngëneel yi ngëneelu tiim summal fadaa ilu topp ngëneelu tiim tuxat def na ko lim arbaxan muy ñeent awwaluha aji njëkk ja tasmiyatun mooy wax bismillah fal tasmax na nga dégg waxaddim ak ngay jiital al yumna ndeyjoor xalaa yusra ca càmmoñ kama taqaddama nakam ko jiitalee fii xayrihi ci wudut bii fadilatan mbir mu muy ngëneel wa hakaza naka nii taqdimu jahirin ziraaxi mooy jiital bitib loxo ba aydan ba tey ala baatinihi ca biir ba duna nizaax ci xëccoo di man ak ngay jiital muxaddama lañu jiital al ahda ay ca ya ala mu wàqi ca la mujj bilastisnaa i ci lu dul setteel kon bokk na ci sunnay ngëneelal tiim ñeent la ba ca njëkk ca ngëneele mooy wax bismillah moo tax mu ne la comme nañ ko waxee woon ca yu njëkk ya mooy lu mel ni jàpp la wala sangu farata xam nga yooyu yëpp bañ koy tàmbali waxoon nañ dangay wax bismillah bismillah googu ngay wax ci tàmbaliment ba ay ngëneel la kon noonu mu nekkee ngëneel ca jàpp nekk ko ngëneel ca sangu farata ak leneen yu dut moom moo tax mu ne la comme niñ ko waxee woon ca yu njëkkee rek noonu lay nekkee tamit ngëneel ci tiim mooy booy tàmbali wax bismillahi ak ngay jiital ndeyjoor ca càmmoñ bu ko waxee nag mooy booy masaa na nga jiital ndeyjoor door cee teg càmmoñ mooy ñaar ñetteel ba mooy ban mooy jiital masa bitib loxo ba booy masa loxo bi xam nga waxoon nañ laal ca farata ja ci biir nga biir euh, loxo bi da koy tàllal ni masa ko ci kanam masa ko ci ginnaaw waaw moo tax mu ne bokk na ci ngëneel yi booy masa loxo ba na nga tàmbalee ci kanam loxo ba boo paree door masa ci ginnaaw loolu tamit bokk na ci sunna yi muy ñett mooy masa biir loxo ba njëkk ngay masaa bitib loxo ba njëkk ngay masaa biir na kon biti bi ngay njëkk a masaa door a masaa biir ga ñeenteel ba mooy ban mooy jiital loxo ya ca la nga war a loxo ya la nga war a laxas ca loxo ya bu dee tiim dañ naa la nga war a masaa ca loxo ya maanaam booy masaa na nga tàmbalee ca kaw conc la wàcc ba ci cati baaraam yi door a yéegaat ci kaw kon dañuy bëgg ngay tàmbalee ca kaw wàcc ci suuf moo tax mu ne na jiital lañuy jiital ca cër yi ah, kon loolu la ci jublu kon booy masa wala ngay raxas da ngay tàmbalee ci kaw wàcc suuf mu ne amma nawaaxidu ndaal way firi tiim ya maanaam lan mooy firi tiim mu ne jamiixan mboolem seen fakama taqaddama nekk mu jiitoo minal wudu ci njàpp mut la xam lu mu mën di doon illaa li naylil maa i ci lu dul am ak ndox maanaam ci ci lu dul am am am ndox min xabli duxul ci njëkk dugg ci julli ga laa baax dahu waxuma ginnaaw ba kama nastanik mu ko yaxalee bii ci moom annabiyil aji xelu ja mu ne nag lan mooy firi tiim maanaam lan mooy toj tiim mu ne la fekkee luy toj tiim moom dangay jàpp ne lay toj njàpp mooy toj tiim lam la waxoon ne mooy toj njàpp daal jàppal na loole mooy toj tiim waaye nag ba mu des ki nga xam te dafa tiim ba pare walla dem julli bi muy dem di julli ji rek wala bi muy tiim te pareegut ñu ne ko ah ndox am na wala muy tiim pareegut gis na rabi yaa ngi xel kon boobaabaa tiim la day yàqu kon day dem jàpp loolu ñëw julli kon loolu moo bokkut ak njàpp ndax njàpp boo xasee jàpp rek jeex na waaye bu dee tiim nag bu fekkee da ngaa tiim wala ngay tiim goo far gis la bi ne tijji ndox am da ngay dagg tiim ndax tiim la yàpp na nga dem jàpp ji door a julli lu dul nag ba ngay tiim dangaa tiim te xam ne waxtu wi li ci des boo demee di jàpp waxtu wi jàll waxtu wi jeex kon boobaa moom du yàqu da ngay continuer sa tiim dem julli wala nga tiim ba pare ba julli ci biir julli gi ci biir julli gi nga dégg nit ñi naan ndox am na kon bu boobaa doo dagg julli gi de da ngay julli boobaa julli gi dina baax li tax mooy la nag li yàq tiim na mooy bi ngay tiim fekk na waxtu wi des na nga xam ne mën ngaa dem jàpp ñëwaat julli te waxtu bi du jeex bu boobaa da ngay dagg tiim nga dem jàpp ji ñëw julli kon daal booy tiim far ndox am dangay bàyyi tiim nga tiim nga day yàqut waa mën a tere na alxibru fóoy ba allazi mooy ka xam te ni waxaa watu al fiqha fiqh fardayni ñaari farata xat jumi xaa goog boleef na ko fii tayammum ci tiim laakin waaye nag nawaafilu kasiir yi naafila yu bari bihi ca moom jaa ismu aji dagan la innuwiyat neem yéene na ko fanta bi na nga yew mu ne nag tere nañu kuy julli farata war tiim nga xam ne tiim mooy moom la war def warta tiimal ñaari farata ci misaal tisbaar ak tàkkusaan mën nañoo bokk waxtu julli woo tisbaar ba tàkkusaan bi dugg si nga tiim wala julli tisbaar kon boobaa boo jullee tisbaar ba sëlmal da ngay tiimaat door a julli tàkkusaan kon waroo tiimal génn tiim rek julli ci tisbaar julli ci tàkkusaan déedéet kon li war mooy dangay ngay tiimal tisbaar julli ko ba pare tiimalaat tàkkusaan julli ko kon daal ci misaal day mel ni benn tiim mënta julli ñaari farata faw benn farata day julli xam ne dina ñëw ci kanam leeral ko ba mu gën a leer mu ne fekkee nag benn farata rek ngay tiimal boobaa dagar na nga tiim julli benn farata bi ginnaaw boo xamee ne war ngaa naafile ci maanaam dangaa war a julli tisbaar naafile ñaari rakk ba boobaa mën ngaa yéene julli tisbaar boo julee tisbaar ba pare tekki sa ñaari ay naafile wala sa ñeenti ay naafile kon naafile gi sunna la kon day mel ni man ngaa tiimal farata teg ci naafile waaye nag mënoo yéene naafile teg ci farata wala nga ñaari farata kon benn farata rek lañ mën a tiimal wala nga tiimal farata teg ci naafile kon loolu tiim mën na ko xañ na dina ñëwaat ci kanam leeral yenn ci yi nga xam te lu dagan la ci kii tiim ak yi nga xam te ni day daganut ci moom ci day jeexalee buntu ngëneel li kon day mel ni suñ jotaayab tey mën nañ ko yemale fii di ñaan suñu boom defal ñu dégg ak topp di sant mbokk yi nga xam ni dañuy faral di teewal jotaay bi ñu nekk ci bitim réew ak ñu nekk ci biir réew mi leen ñaar jàmm ak sutura ak dégg ak topp in uridu illa al islaha mastataxtu ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Amen.